te leen di jox gerte bi may am million di ko diisale sama poos kenn amul ci junni kenn am je les défie ñetti compte laa am nañ leen audité benn bi ubee yàlla li may wax ñoom nañu wax seen xaalis fu mu jaar benn bi maa ngi ko am CNCA état ko contrôlé benn bi man ko am fii ci CBAO compte la boo xam ne yàgg na

loolu laa waxoon man bu ma ci waree am 1000 tonnes naa ko ci am keneen am ko ci cinquante mille tonnes kay bu ñu ma ci joxee mille ton ci ci cinquante producteur pour ma jaay leen ko ndax am na ñu may laaj ndax yi dañ laa jox nga joxe mais c'est pas vrai man une graine joxuñu ma ko dama leen a jaay da ngeen a subventionné baykat bi moo may fay ma leen di topp xaalis ngeen ma yor yéen fayagu leen ma man maa lebi lebal leen dimbali leen ngeen bëgg ñebe. programme de sauvegarde bi ma wuti Burkina mais kiko def ab GIE la du Moustapha Cissé du du jënd ñebbe Cheikh Junior moy wax facture parce que c'est l'administrateur GIE li ñuy wara fay